ak Mamadou Ndoye Bane mu nekk ci bagage war a yegg si maa ngi ak sama droite euh, l'homme passe partout di ci ànd ak ñun. loolu maa ngi lay nuyu. maa ngi lay delloo ziar baax a baax. suba si. ñu ngi sant bu baax yaa ngi waajal gàmmu gi. ah yàgg na tey tey la ñuy dem. incha allah xalaas day dem Tiwaawan. demoon nañ Touba. dafa liggéey bu mucc ayib. waaw waaw xalaas day dem Tiwaawan. day dem Tiwaawan Tiwaawan xaar de. ah ay eh, ja baax na ñun kay yoon waa ngi noonu. tey jii jii dañuy dem <laughs> Tiwaawan bu soobee yàlla. yoon waa ngi noonu yàlla ci yàlla yóbbu ak jàmm ak salaam ñi nga xam ne itam. ña nga fa ñu nekk fa ci jàmm ñiy waaj a dem muy Tiwaawoon muy Kawlax dina bàyyi fépp fu nit mhm. bëgg a gàmmoo di Touba. yàlla nga dem ci jàmm ñëw ci jàmm. amiin euh, laata ndoy baan di ñëw. Mhm. xam dafa am ci xalaas ay partenaires yoo xam ne. Mhm. boobu ba léegi dañoo jàppoon. Ah, waaw espinard cee wax. waaw la génn réew mi. waaw waaw tey ndax dana ñëwaat. c'est la grande question. Euh, mais xajatul Sénégal moom. maa ngi koy toj de hmm? tout cas da mel ne ko fa montre jamaa. Ah. ma gis ko nii ma ko ma ngi koy ma ngi fay toj de. waaw. baabaa daal. looloo ko génnee réew mi Ah, inventé na ngénte yi fi dem bu ëpp ko loxo mu génn pour coow li dal dafa daw waaw xam nga léeg-léeg nag recul da ciy baax loolu xalaas la moom ma maa ngi woon ci partenaires yi air dund gu neex ji li lay gunge ngir sa kër neex sa dund neex saw nekkin neex mhm. mooy air fraîche leen remercier biscuit Rio ñu ngi leen di sant bu baax programme national de lutte contre ci xalaas euh, ak meew bi nga xam ne moo di l'écran ah. ñu ngi leen di remercier réew ak biscuit mi nga waroon a kole nag Euh, mbiskit mi soo ko dugalee ci l'écran ñamal si loolu seet du maa ko fi wax keroog wax poñse waaw poñse ñii dem bàngo xam nañ loolu ñii dem bàngo waaw xam nañ loolu soldaar si xam nañ loolu njaba njaba njaba njaba lañ koy wooyee soldaar si maa ngi leen nuyu xam nañ loolu maa ngi kalaati diil yi ma waaw foo bëgg ñu dooree fa police def na ci liggéey bu am solo. police bu mhm. Rufisque. Mhm. ñuy féliciter commissaire ba ak ay omam. Mhm. Euh, gendarmerie tamit ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo parce que nit ñi sonn nañ ginnaaw nag nit ñi ñenn ñi nangu ñoo yeewu njaay. ah il faut takk der yi jóg. takk der yi dañoo war a toog sax. waaw waaw waaw jóg jàpp ci bu baax a baax. ñuy jàpp balu fetal yi daal. waaw. waaw Bali Fital yo doon romb yo doon romb war ko bàyyi yo doon romb pire léegi la kii doon def revue de presse fii nii ma dégg ko muy commencé xaw ma lan day wax Bali Fital ya yañ jàppe ci biir man ko jàppewut xoolal Bali Fital yi da doon romb mhm. gendarme yi tiyaawoon yi monté pire jàpp leen fu ñu ko jàppe ca ca garage ba. dañ doon romb. fu garage ba nekk. garage ba Pire nekk. waaw ah, jeex na ni ngeen ko waxee. ni ngeen ko waxee day mel ni tey jii arme ya. dañ ko dañ ci mbiri sunu gàmmu la a a yàq. yaa ngi woon ci mbiri cybercriminalité. Ndiaye dañoo dañoo dugg tëngéej sax. Hmm. balaa ñu fay génn. tàngee tëngéej tëngéej. dafa lu garaaw la fa xew benn ko depuis démb ci guddi. Hmm. ñu hmm. benn ndaw benn xale bu jigéen. bu amee doom hôpital Youssou Mbergane. ñu césarienne ko. biñ ko césarienne d'après liñ ñu wax. infirmière bi indil ko xale bi pour mu war koo nàmpal. mais nee nañu ci li ñu wax ba tey dafa fekk xale bi gaz bi dafa yéeg. ñu bàyyil ko xale pour mu nàmpal ko ñu dem bàyyi ko ak liir bi ñëwaat fekk liir bi dee ci kawam. waaw ñu ne yaay ji ci boppam moo ko rey. yaayu maanaam maanaam xale bu jigéen bi waaw moo rey kañ yóbbu bu ñu nàmpal ko mhm. nee nañ moo ko étouffé mhm. ci lu ñu wax infirmière bi woo police police ñëw jël si xale bu jigéen bi biñ ko jël si il s'est xale bu jigéen bi nag mineur la mhm. ñu ko ko ëmbal mu ñëw ñu jàpp ko jàppaale xale bu jigéen bi depuis samedi hmm. waaw actuellement hmm. ni ñoom ñu ngi police bu tëngeej ñu téye waa kër ga nag nee nañu xale bi mineur la du du mineur du moins mais d'après enquête yi ba ñu jotee papier administratif yi il s'est trouvé que xale bi effectivement mineur la donc xale bu góor dañu ko jàpp pour détournement de mineur suivi de grossesse. Mhm. fee tamit nee nañu hôpital bi nee nañu xale bu jigéen moom mooy étouffé diir bi. Mhm. léegi nag la question mooy. homicide volontaire lañ ko war a xale bu jigéen bi nee na moom instant bi ñu ko indi libre elle n'était pas consciente. yëgu ko yëgu ko parce que dañ ko césarienne gaz bi yéeg ñu ni ko liir bàyyil ko ko fa am ñu ne infirmier dafa waroon taxaw. surveiller ko. ba mu nàmpal ko ba pare donc actuellement ni bu ñu paree dinañ ci dem euh, dañ dem tënkee léegi léegi. Mhm. pour gën a approfondir loolu mais ñu jàpp ni daal xale bu jigéen bi ak xale bu góor ba ko ëmbal. Mhm. actuellement ñu ngi posé tënkee ñu téye. Mhm. sama xalaat bu njëkk. mooy teesu xale bu jigéen bi moo étouffé doom ji man gëw ma ko. Mhm. Mm-hmm. Mhm. bu ko doon def du yegg foofu. Mhm. sage-femme waroon nañ ko assister. au delà de ça sax. bu fekkoon ne da koy jur. dem ñu césarienne ko. xale bi juddu mu étouffé ko mu faatu bu doon looloo nekk maanaam bañoon a gàdde xale bi bu nekkoon ci ay pexem. du accouché ju hôpital. benn ñaareel ba mooy du yegg foofu yëpp kon man tees boobu néew ma amul de. néew ma amul de. mais man gëw ma ko. ah léegi nag. coow am na. ndax moom bu waxee ba set ci loolu. Hmm. moom xale bu jigéen bi. Hmm. waaja moom dugg na liñ naan ay du yem ci bopp borom. waaw waaja ca boppam. dugg na ndax mineur ga. waaw doomu procureur la de. d'accord mais gis nga ban. Ah. am na yenn politique yoo xam ne bu ñu ko doxalee ci réew mi. Hmm. ëmb bañ yi dina bari torop. waaw. Ah. mineur comme moom def na li muy def. waaw xale bi mucc na. waaw waaw. ah léegi nag man. dañoo war par exemple mineur. ku xas bu ëmb rek ñu génne la ci cadre boobu. cadre mineur mineur du ëmb. ah logique pour logique néew ma nag. Ah. scientifiquement mënul ne dama ne logique pour logique mineur du ëmb. du moment aussi ëmb na. xale bu bi toppatoo na ko. waaw euh, jël ko en charge ba ni muy amee doom. def na ko waaw. Ah, xëy na kii dina ci am. Ah, toppal ñu loolu toppal hmm. ñu waa ji kii cinq Niger euh, ay nationalité nigérienne lañu waa ji ki jiite woon deal bi mu ngi tudd Freddy bi ñu leen fekkee ci néeg bi sax. dañ doon jéem a daw kenn ki cëppeelu ci étage bi tànk yi damm. police yóbbu ko hôpital faju ko arrêté na leen defe naa war na leen a sax. wax naa leen fii ne leen. waaw ñiy jël seen i appartement ne ñoom étranger yi la ñuy préféré mhm. di louer. Mhm. ñi ngi encouragé jëf ju ñaaw. Mhm. effectivement na fii kër yoo xamante ne jii boo duggee ci immeuble étage sangam di yoo fa nekk ñi fa loué doo leen gis lu dul guddi. guddi rek. bañ na ko ba seen appartement soxlawul courant. Mhm. li ñuy làkk dégguñu ko ñoom li ñuy làkk ñun dégguñu ko. Mhm. mu leer la ne ñii la ñu fa nekkee du lu du lu yoon santaane. ah yéeme na de. te dañ fay loué deux mois gën dem seen yoon. Mhm. fay fay la lépp ah. dañ lay fay ay six mois wala ñu fay la. léegi nag mënuñu di xeex lii ba pare ci côté bi. di ko ah. dooleel fële. ah doy na waar de. moi je trouve inconcevable ni tabax këram ba mu pare. ne étranger yi lay prioriser. di bëgg waroon ngaa dem France nga bëgg fa dëkkuwaay nga xool. doy na waar de. lii lu mu ngi nii nii nii man c'est que ñii dama dul sawal ñu di ci wax ñii moom ndaw lii nii may waaj teg sax am na ñu bari ñu ko jot ci seen téléphone. mooy mhm. ndaw si doon arnaqué noonu. Mhm. ndaw si doon jéem a arnaqué. te mu nekk naan te di déglu xalaas. déglu ko. maa ngi judd le 2 janvier. gaañu naa loolu nga loolu nga identifié si leen si identification bi man de dañ ma kaa defal. piste piste bi dañ ma kaa jox noonu rek moom laay wuyoo nag mais bi ma ko identifié woon yàgg na de boobu identification yi xewul woon. Euh, sa date de naissance moom moo nekk 2 janvier. 1987 87. waaw. Euh, Ndiaye Boye ma ni. waaw. xam lu waral orange sélectionné la tey. waaw dañu gis ne yow da ngay utiliser orange foo toll te aussi dañu utiliser orange money aussi foo lu waaw. loolu moo waral tey ñu woo la pour may def par orange money bu toll ci 180. may na fi cinquante mille bonus ak un mois d' appel gratuit vers Orange. waaw ah, loolu moom neex parce que bi ñu vérifié machine bi tey rek à dix sept heures sept minutes bi nga mujj def. Mhm. mooy nga defal numéro soixante dix sept cent soixante treize onze cinquante rechargement de crédit bu toll ci mille cent. waaw. moom nga ko defal léegi léegi dix sept heures benn numéro quatre cent cinquante cinq mille francs à quatorze heures cinquante huit minutes. waaw def naa loolu nga transféré nga transféré sept mille cinq cent quatorze heures vingt cinq minutes zéro quarante quatre vingt douze quarante. waaw. nga transféré waat cinq mille trois cent cinquante c' à dire cinq mille six frais. Mm-hmm. quatre cent quarante huit dix treize. waaw. dañu jour au jour dangay orange di utiliser orange money di jënd crédit di activé utilise surtout la waaw. pour confirmer pour confirmer wu ne borom téléphone bi la ñuy wax ak ma sa code secret orange moo ne. code secret nu muy doon. numéro bi kay boo wootee ci numéro bi rek borom téléphone bi ngay waxal. non yaay booy mel waaw xam nga li ma la wax yëpp ku nekkul orange mënu la jox transaction yooyu. dëgg la. vérification commerciale la ñuy gis nga date de bi nga joxe day erroné date de naissance boobu méngoowul ak date de naissance bi nekk ci machine na nekk mais man loolu laa na reconnaissance boobu c'est erroné léegi pour confirmation commerciale mu rappelé votre code secret Orange Money xam nga sa téléphone yow yaa ko a amul kenn ku ko yore ku dul yow même pas cinq secondes vous recevez votre message de dépôt de cent quatre-vingt-dix mille waaw ñoo ne ñëw gisaguma ko ma ne pour une confirmation vous me rappelez votre code secret Orange Money pour qu'on puisse valider vous recevez votre message code bi laa lay jox pour nga dugal kii bi. mooy code moo nekk 47 37. 47 bi mooy quatre chiffres yi ma la envoyé boobu laay cumulé ak sa code secret orange ma nga jot sa ah. quatre chiffres inscription bi. su ma raccroché ak yow. waaw ba nga ba nga vérifié ba gis ne 190 000 mu ngi sa compte. waaw li orange di ñaan mooy nga dem retiré ji soo paree aussi. changer sa code secret Orange Money d'accord. d'accord mais mënuma mënoo leen def mënoo leen def comme bu ngeen def ni kii message bi rek yónnee ma ko ba pare. puisque yow intellectuel nga da ngay xool message bi ñu la yónnee xam nga message boobu doyul. waaw léegi puisque message boobu doyul Orange day repéré wu jox la ay numéro. waaw ak ay heure exacte xam nga dama la jox heure exacte da ngay xool ndax dernier transfert bi nga mujj def. waaw nekkul 17 heures 7 wala. loolu la kay am na fa bu may waaj a def nii waaw. nous on fait que la validation nga jot cent quatre-vingt-dix mille loolu rek moo ñu ci intéressé d' accord. waaw mais validation ajoowul ah, kay kii ak validation comme su ma joxee code bi day mel man maa. mani mani mani. Uh-huh. nekkul man maa la tànn. Uh-huh. ndax su ma amoon cent quatre-vingt-dix mille yu ma lay dénk ma koy jox sama kenn ci sama famille. Oh. mais plutôt c' est la Sonatel qui t'a sélectionné léegi tout de suite soo jotee sa bi déglu. ah ok da ngay remercier Orange mais c'est pas la peine de me remercier. d'accord. xam nga déjà date de naissance bi fay moo erroné wu moo waral ñu demander le code secret pour confirmer wu d'accord. ah waaw. pour une meilleure confirmation commerciale bu ma rappelé war na code secret Orange Money. d'accord dinaa la ko jox waaye sa yaay ak sa papa ak sa maam ak sa dëj bokk. seen sox dangay dangay jàng français ba pare nga dégg français li ngeen def rafetul waay ah ñii ñii dañoo yow léegi mag da dem di ko arnaqué lu tax. loo mën a bloqué loo loo mën a débloqué bloqueel waaye doo lekk dara. waaw gannaaw waxal ak man rek lu tax ngeen di bëgg a sàcc yi expliqué ma ndax ma comprendre. waaw wuy ma. wuy ma waaw léegi xoolal bàyyi li nga def nga ut liggéey nga gagné sa xaalis. waaw doo ma jox doo ci may comme xam nga sama numéro may ma ci la nga jot a am tey. xale bu jigéen bi ngeen won ni day daan dooleem ba su ne di xëy di liggéey pour am xaalisam. bàyyi li ngay def non mënoo ko mënoo ko. waaw wuy ma bu ko bloqué may ma ci dara rek may ma ci la nga am rek. nee na nee Ndiaye. Hmm. lii la askan wi du dun dund de. chaque jour chaque jour. sama Ndiaye su ñu waxee ñu ni waxati gën nga opérateur téléphone yi ne ci dëkk bi. Hmm. ah protéger wuñu askan wi. ñoom ñëpp. Hmm. protéger wuñu askan wi. d'accord population bi ñu nekk ñu ci bari jànguñu. comprendre nga. mais waruñu leen a seetaan. waruñu ñoo ñoom waruñoo seet seen bopp rek di wut xaalis rek dañoo war di protéger askan wi. def beaucoup de communication ci lii nii même su fekkee nit ñi dañuy nelaw souvent lu baree bari mais war nañu leen def campagne de communication bu am doole pour gën a dimbali yee askan wi mais ñii di liggéey ci ñoom ñii ñii ñii di wax nii suñu liggéeyul ci ñoom dina ma jaaxal parce que ku mën a vider compte orange mën a jàmbur mën ko wax ni ndooy baan bi nga xëyee envoyé nga sa yaay xaalis envoyé nga sa papa xaalis envoyé nga diw retiré nga diw recevoir nga diw nu ko mën a xamee nit la ku am accès ci système bi waaw léegi ñoom nañu nañu nañu protéger seen système bi parce que am loo bu ñu ko bu ko defee. askan wi ñoo ciy loru bu fragile yenn fragile yi rek askan wi ñoo ciy loru. Ah, bon xëy na dégg nañ ko dinañ jël seen i matuwaay dinaa la benn affaire nag. ci yenn société yu mag yi. waaw gis nga njuumte lu mu def. waaw ndu njuumte lu ñu def ñoom. erreur bu ñu def. Mm-hmm. bala cee nit ñi joti jël nañ seen i matuwaay gis nga lii nii. Mm-hmm. xëy na affaire bay soog a génn. Mm-hmm. mais tey bu ko keneen bëggoon a def du sotti. bon sama yaxaar xel mu gàtt parce que dofuñu aussi <laughs> euh, ñoo fi indi benn système nit ñi di denc seen xaalis ku nekk la nga am da ko fay denc. Mhm. xaalis bu bari la nit ñi di denc seen compte yi. Mhm. donc xanaa ñoom duñ leen di dencal ba pare denc ba wóorul nañ jël seen i ah doy na waar bi ñuy jël par rapport ak ñoom la ñoom yi. Mhm. parce que boo xoolee par exemple yow yow si sa téléphone yow sa compte Orange Money tey. soo amee problème nga dem Sonatel. procédure bi gudd na gudd boo xamante ni. tellement que ñoom dañu protéger seen système. Mhm. comprendre nga mais tey li nga nga lii nii chaque jour mu te waa ni mu ko waxee mhm. mhm. wax mooy ni gars yi biir Sonatel la ñuy liggéey. wala lañ doon. parce que waa ji waa ji mënul xam mënul toog ci benn instant. di xool transaction yi nga def yëpp ak heure yëpp mu la koy wax comme ça. yéeme na de kii Sonatel liggéey c' était chaque jour mu am. gis nga bu ñu la wooyee Dóor ba son ah. te tey jii nii nii dina am ku ñu ko defaat compte am. est ce que ah, ah xam nga ne gars yi ñu ngi ah. koy utilisé euh, ñu bu ñu toogee bu ñu toogee sent place ñoom. ba nga xamante ne yow mënoon arnaqué ñoom. waaw mais dañu protéger ñu ba ñu ba ñu arnaqué ñu tamit. yow tey yow mënoo dugg ba ba arnaqué man mii man man man baadoolo bii nii mais léegi man baa dara man su ma toogee ñu arnaqué ma facilement après mën naa perte te boo demee soxna léegi léegi yaa porté plainte tamit dara du mujj fenn da ngay dem police porté plainte police yi yi bala bala ñu laa répondre sa waay euh, da ngay waaru de comme xoolal ñu doxal opérateur yëpp la nag yëpp yëpp ñoom ñëpp la tout le monde ñoom ñëpp la protégé wu leen askan wi ñu doxal da ngeen ne leen lekk seen xaalis par doo leen protégé terre bi terre ban bii nii daam saxaar gi ma dégg train express régional. voilà lu ci xew daa départ. benn waay. waaw moo nekk ci banlieue bi. ni leen moom agent TER la di TER ñoo ko yebal pour mu récupérer euh, recurité ay nit. ci recrutement boobu. Hmm. da leen laaj fraude frais de dossier. gi nga li commencé Pikine. Hmm. Géejawaay Tëngéej maanaam secteur boobu noonu jàpp Thiès jàpp Ñaxirab jàpp àll foofu yëpp waa ji lim fi récupéré ci ay xaalis kenn xamul nu mu toll. ba pare hmm? di fes man contacté naa waa waa waa TER bi ñu ni ñoom communiqué nañu ci loolu ba sonn mii nit ñi nanguwuñu dégg. waa ji day ñëw ne la. ni la ci euh, entreprise boobu lay liggéey. waaw hmm. dañoo war a recruter. recruter ay nit. waaye nit léegi nag ci recrutement yi da ngay joxe frais frais de dossier da lay laaj xaalis man leen de ak ngeen dégg Mouhamed Ndiaye wala man mii manaan naka laa lay utile liggéey. ba pare di la laaj xaalis. Mhm. nit ñi tamit nag njaay nag vraiment nag nit ñi nag vraiment nag. <laughs> Ah, yow de yow amoo dara bay wut liggéey. <laughs> ma ñëw naan la jox ma mu man ma war laa jox liggéey di la laaj cinquante mille di la laaj cent mille di la laaj deux cent ma ko jox quand nag yow tam am na yoo xam ne soo def kii sax nga utiliser sa xel bi njaay. Mhm. ban soxla bu taxawee xel day tëju. nit ki boo ko toppee ci bëgg-bëggam rek rey ko. déglu leen jox ñu. paa bi dafa ne ci teer bi lay liggéeyee mu ngi tudd Moustapha Diong nee na ingénieur la woon foofu dañ ko wax pour mu recruter ay nit dafa doon liggéey ba retraité mais dañ ko wóolu ba jël ko ne ko dafay recruter na na jël dañuy recruter foofu ay nit kuy togg rechauffeur ñi nettoyer ak contrôle pompiste ak gardien ñu proposé ñu ko ñun tamit ñi daal di d'accord mu laaj ñu ay frais de dossier ñun ñu nekk cuisine mu laaj ñu ay frais de dossier trente cinq mille soixante mille man rek joxe naa deux cent vingt mille sama mag joxe cent trente mille Tëngéej plus de cinquante personnes xanaa def na ko fa ñoo ñu ay ñii di togg tam ñii ay receveur ñii contrôle ñoom tamit ñu joxe Mbuur tam def na ko fa cees tam mu def ko mu dajale ñu ñun ñëpp ku nekk nag dinaa la envoyé dossier yi ku nekk xaalis boo ko envoyé rek paa bi yónnee na la euh, kii bi retrait bi nga ko def ak yëpp boo xoolee dossier yi di nga ko gis ba mu ñu wax ñu rendez-vous ne le 30 ñun ñëpp nañu tase tëngéej kaar biy dem teer bi dinañu jël si bu ñu jël see bu ñu demee jam ñaajo si la ñuy jël suñu chèque signé ñun ñëpp ku nekk démarré sa liggéey bi mu récupéré xaalis bi yëpp nag daal di fay ñett ak numéro téléphone am yëpp déggatuñu ko fenn gisatuñu ko fenn. boo xoolee dossier di nga gis def na ci waa si ñu ngi ci. moom ay yore na ay signature am yore ay cachet am xam nga soo bëggee liggéey rek ak dëkk bi ni métti moo tax. gaa déglu nañu arna arnaqueur déglu nañu ay arnaqueur mais paa bi bi ñu ko nee ah ñun affaire bi ndax ma nekkul ay dóor daf ñoo yónnee dossiers yi ñu yi lay wan noonu ne étudier leen ko ngeen xool terre bi dafa war a dafa war a recruter ñun loolu moo tax ñu gëm ko. mu defar budget et tout tam dinañ la wan budget bi ak yëpp nee na Moustapha Diong la tudd fu nekk nag wër nañ ko fa fu nekk dem nañ fa. parce que ku mu ci laaj xaalis doo tëdd ci lal te ku ci laaj frais de dossier yi doo tëdd ci lal te te joxoo ko ko. ñun daal li ñu gën a jaaxal mooy suñu papier yi nekk foofu man sama nine yaa mi ngi fa sama registre de commerce mi ngi fa sama photocopie carte d'identité mi ngi fa. naa ndax góob ma sax ko jàppam déet parce que ñi ñu war a dimbali yépp suñu waxee lii ñun duñ xamatu nu ñuy def. léegi daal ñun fi ne xamatuñ daal lan lan la ñuy def daal. waaw ngeen <laughs> jàppale ñu boobu ñun sonn nañ fi nii de. xam naa ne buñ ma jàppee moom ba ñi ma ñi ma ñi gàddu ñi ma gàddu moom buñ ma jàppee moom dañ may tëj moom. benn ingénieur ci terre bi wan ma badjam ak ay tonné mag tout cela bi ñu defee noonu mu daal di ma xamal ne day recruter jox ma fiche bi nga xam ne mooy fiche recrutement ay profil yi ñu soxla et tout cela ma daal di postuler bi ma postuler man domaine communication laa postuler parce que man communication laa def mu laaj ma frais de dossier samay frais de dossier rek dikkee na ma cent trente mille mais man tey bu fekkoon ne dafa lekk sama xaalis rek dem ça c'est pas un problème mais ñi nga xam ne dañu bootu sama ginnaaw ñi nekk su may xarit ak su may am di jàmb tey jii nii tax man ma euh, coordonné leen neen ah man de déposé si terre bi expliqué leen euh, détails yëpp jox leen numéro pa bi ñu woo ko paa bi ne leen mën nañ déposer mais ñooñu tey ku si nekk bi ngay déposer ay papier ak sa xaalis bi la ko paa bi laajee ñi ay 35000 la leen laaj ñii mille bi mu leen laaj seen papier daf leen coordonné directement pour mu ñëw si man ma daal di ko envoyé xat papier parce que nee na moom xamu leen man la xam te man ñëw naa effectivement toog jàkkaarloo ak moom. mu expliqué ma détail yëpp war ma tenue yi nga xam ne moom la nit ñi di liggéey am si ñoo xam ne xam naa leen mu génneen seen tenue seen i lacoste yu am ay matricule et tout léegi nag bi ñu defee noonu. ndakate affaire bi arnaque la mu jox ñu trois dates yoo xam ne amul benn buñ ci respecté muy 26 août di 16 di 30 septembre muy date yoo xam ne tey am na mais kenn uy jiw ko mu nekk situation boo xam ne c'est dérisoire te du ñun kese lañ ko def def na ko Tëngéej def na ko Bargny def na ko Ndaayaan def ko Saint-Louis def ko Kaolack bën naa ne def na ko fépp def ko ba dakaar fu ne ba pare nag mbir mi ne nekkee noonu ba pare di continuer te waa TER bi jéemuñu jël seeni responsabilité puis euh, policier ak gendarmerie tamit dem nañ fa mais rien n'est fait pour le moment parce que affaire dafa am lenteur trop te paa bi mu ngi ci dëkk bi di circuler te mu ngi lekk xaalisu jàmbur yi te am na si ñoo xam ne ñii dañoo leb pour joxe ñii dañoo am benn somme bu ndaw dajale ko joxe lii lépp pour bëgg a liggéey. lii lépp pour bëgg liggéey bëggu bëgguñoo sàcc bëgguñoo ñaan bëgguñoo taxawaalu si fenn di tàllal loxo wala dara moo waral bi li ñëwee tekkat ñu demee nii te koo xam ne mosoo am liggéey ay stage kese ngay am te nga tollu sa ndaw war a liggéey wara dimbali ay parents teykat ñu ne la woon liggéey bi boo joxewul deux cent mille sax doo ko am di nga ko joxe uniquement pour am contrat parce contrat mooy li nu mel mais daal si suñu bëgg-bëgg boobu la pa bi jaar arnaqué ñu mais tamit te tout un chaîne mat nañ plus de deux cent personnes noonu dañu def ñii trente six mille ñii trente cinq mille ñii cinq cent cinquante six mille ñii cinquante deux mille man mii di wax ak yow man daf ma dekkal cent trente mille sama yaay cinquante six mille sama tante cinquante six mille suma rakk trente six mille ainsi de suite ainsi de suite noonu la ko jàppoo te bu ñëwee wax ak yow tey doo si mën a bañ dara parce que daf lay jox ay papiers leer information yu leer même sax bu teet war a def tey déclaration wala ñu war a tey am ku ñu invité télé 48 heures avant dina la ko annoncé. fi mu toll nii teg nañu coono ñu ngi jaabante police ak gendarmerie te dara sottiwul ba tey loolu daal fi mu toll nii mooy suñu problème mooy suñu cri de cœur te état bi tamit war na si jël ay mesures ñi nga xam ne ñoo yor terre bi aussi tamit am nañ si part de responsabilité ils sont donc avertis te xam ne lii nii kat. mu ngi yàq seen der mu ngi ternir seen image te terre bi commencé gu sax fonctionné te commencé na tey jii nii kat am ay tilim tilim déet terre bi kay tilimal la ñoom ñoo tilimal seen bopp. waaw ah, vraiment. lii nag moom baan. Euh, c'est-à-dire xaritoog du tee nga ne nopp yi dañoo gudd. wax bu fekkente ne lii dale na dal. Hmm. ci li ma comprendre mooy responsabilité train express régional bi laale woo ci ci dara. Hmm. yoonu seen yoon newu ci kay. waa ji ko dénk daal nu mu tuddati. Sall. Sall la walla wala kii Moutaga dañ leen a changé changé ba xamatoo ku nekk fa nga toog. Abdou Ndéné Sall. non mooy tëb na bu yàgg. mooy directeur terre defe na. ah bon waaw. lu ma ci xam ah Thierno Lo daal dégg naa ko ci. ah mooy Thierno loo mooy PCA bi. waaw yooyu xeet yooyu daal léegi Moutaga mooy APIX. Hmm. seen waa ji mooy moo yore communication bi def naa moo yore communication Johnson Johnson ah, am Johnson daa picc waaw Johnson waxtaan nañ ci uh-huh. expliqué mu mën ñëw def nañu ay communiqué et tout def nañ lu ne mais nit ñi ci boppam ñoo ngutu ñoo nangutu dégg uh-huh. ñoom def nañ ay communiqué mais Ndiaye su nit ñëwee ni la man ci terre bi laay liggéey yor gilet terre yor badge terre et tout ñëw nii la dama dañuy recruter loolu état nga xam ne état la. Mhm. mais état du la ni da la may recruter ba pare laaj frais de dossier. dëkk bi ku fi moytuwul nag fraude frais de dossier frais de dossier ngi toj dëkk bi. <laughs> attention defal ma jëngal ma def déclaration. ba fooy déclarer. jeune dëkk bi laay waxal. waaw képp ku leen di lijjantiloo këyit naa dama lay wutal la liggéey wala nangam su tuddee frais de dossier rek dawal. frais boppam lay wut. frais boppam lay wut. frais de dossier mun lu weesu kay nga indi say këyit. képp koo xam ne yaa ngi wut liggéey. Mhm. waaja naan la frais de dossier di la laaji koppar. Mhm. dawal xamal ni triant la. yow amoo dara bay wut liggéey. ñu ñëw di la laaj. waaw mais ñii nii na seen joxtu rafet xam nga lu tax. Mhm. mën nga maa njublang rëcc. njublang passe-partout rëcc. mais ñu ñi ngay njublang lu muy gën di bëri. yaa ngi gasal sa bopp kamb. pour ñu jàppale day yomb. te gis nga baan. booy def garab boo gis rocc ko di nga mës a rocc garab bu am ay dégg. mu des say loxo. Mm-hmm. ñoom nañu toog rek cest diir bu ñu accuser terre bu ñu mm-hmm. accuser mer. Mm-hmm. buñ buñ dugg ci yooyu yëpp. nañu toog topp ko ci yoon. xam ne day metti rek waaye dinañ ko jàpp. mu des nag beneen question. ndax buñ ko jàppee lañ ko joxoon danañ ko fekkaat ci moom. Ah, bari na fii ci kaso bi ñoo xamante ne ji contrainte par corps moo leen fa bàyyi. dóor xaalisu jàmbur ah. toog ne suñ ma tëjee su ma génnee noos ci waaw hmm. seen mbokk toog di xaar uh-huh. boo génnee fa lay doxee naax saay mais nan moom daal nañu yóbbu mbir yi ci yoon uh-huh. te toog déglu te yeewu ci hmm. en tout cas man daal mën naa comprendre nga ne fi ñu dëkkoon dañ fee jaarale teer bi te indemniser wuñ waaw laal kooku ci ndoddal terre bi la waaw train express bi fii nii daf ñu dafa xaaj suñ dëkk bi duñ mën a jéggi di dem fii wala duñ dem fii kooku ci teer bi la mais benn muut baan mu daggee ca làng ga damaa jum doy ba am nañ ci dossier ñëw ñëw ne la fii laay liggéeye damay wut ay emploi employé mhm. jox ma lii ma dugal la nga jël sa xaalis jox ko te xam nga lu gën a du sax sénégalais neex a nax mhm. mooy dañoo mën a nëbbu dañuy nëbbatu loo koy wax danaan bu siiwee ma yàqule mhm. boo yàqule nag siiwal ko waaw ah. la ah, bu siiwee ma yàqule fii mi ngi neex doo wax boo yàqule siiwal ko ah, c'est comme mooy li ma lax da ngay gis fii ah. nit ku feebar ñu naan ko muñal hmm. feebar ak dee bokkuñu dara hmm. mu dee ñoo xam daa feebaroon jeex na mu dee ñu ne xanaa daa feebaroon reyal ko nag dén ña ko waroon loolu ci boppam la war a bay day na war de ban dëkk bi passe partout waaw bu suba ak jàmm allo présidence ah. auditeurs yi Ndiaye daa jaar lool non non waaw Abdou Ndéné Sall ngi nii di ma woo allo présidence waa teere ngi nii di ma woo <laughs>